maa leen koy duul Virginie ñu gën koo xam ci Guinée série Virginie mi ngi nii ma affiché da doon def prank léegi léegi ba tey mi ngi live mais dafa soke prank mun naa la doon prank naan ko ay dafa am bu ma jël dañ may yóbbu fii dañ may jox un milliard patron bi nee na ah dafa may jox un milliard affaire yooyu noonu quoi dafa soxla jabar te jabar bu baax la la la bëgg ak affaire yooyu. léegi nag mu naa moom koo la mu dem ba ci yàgg ne ko i yow xanaa da ngaa dof ana Bamba Dieng kaas ya toj. commentaire yi dafa choqué mënatu la live maanaam daal bambaa ngi laal ñoom ñaar ñi ngi génn daal mun naa confirmé ne yëpp jëm na ko envoyé message nag pour mu pour mu ne waaw rumeur yi laa dégg affaire yooyu mais xelu sénégalais yi mënuñu cee day le coup est déjà parti maanaam Gini Virginie ak Bamba Dieng dañu génn Bamba mi ngi ñam. Bamba Dieng ak ki nga xamante ni mooy Virginie mu mel ni rek polémique baa ngi euh, daw partout euh, gannaaw rekk bi nga xamante ni daan na leen ni jiiñ ak euh, couple bi nga xamante ni ñoom ñaar ñu nekk ensemble mu mel ni rek polémique bi day daw mais ni que ni rek démb ki nga xamante ni moom mooy Virginie moom rek moo doon def benn live di prank ak benn xaritam naka ni loolu rek c'est que loolu xala ko xarit ba daal di leeral mbir yi maanaam mu toj kaas yi wax ko ana Bamba daal di patiner daal di koy xamal ni rek yaa ngi en direct si live noonu la mujjee wax xarit ga dañuy génnam nag génnuñu en tout cas lu si kanam leerlu lu bët gannaaw rek bi nga xamante ni comme noonu Billy Marichou tamit noonu leen daal def ñuy euh, génn si suuf kenn yëgul ci nul la polémique bi di jaar fu ne ba tey ji ñu amal seen i euh, mariage dañuy génnam génnul euh, Virginie moo ko def exprès wala def ko exprès lu si kanam rek lépp dina leer fii si couple bi di Bamba Dieng ak Virginie jërëgeen jëf mbokk Actubuzz TV mbégte ko contentement di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax boo abonné gul na nga bës cloche de notification bi ak yeneen information jaa ngeen jëf salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi kaa bi maa leen koy duul Virginie ñu gën koo xam ci Guinée série Virginie mu ngi nii ma affiché da doon def prank léegi-léegi ba tey mi ngi live mais dafa soke prank mu naa la doon prank naan ko ay dafa am bu ma jël dañ may yóbbu fii dañ may jox un milliard patron bi nee na ah dafa may jox un milliard affaire yooyu noonu quoi dafa soxla jabar te jabar bu baax la la la bëgg ak affaire yooyu léegi nag mu naa moom koo la mu dem ba ci yàgg ne ko i yow xanaa da ngaa dof ana Bamba Dieng kaas toj commentaire yi dafa soke mënatu la live maanaam daal Bamba ngi laal ñoom ñaar ñi ngi génn daal mu naa confirmé na yëpp jëm na ko envoyé message nag pour mu pour mu ne waaw rumeur yi laa dégg affaire yooyu mais xelu sénégalais yi mënuñu cee day le coup est déjà parti maanaam Gini Virginie ak Baba Dieng dañu génn Baba mi ngi ñam soo tot tot tot